waa ndigal li day ñaari mag la ñoo déyante woon muy Serigne Touba ak Mamadou Diall ci njaareem Serigne Touba moo woon Mamadou Diall jox ko ndigalul muy togg ndogu déyaaleem ñaari mag la depuis ba ko fa jógee ba léegi nag euh, ci ci ay super ay ay kii la la commencé woon ay euh, ay ginaar la commencé woon ay bool yu ndaw ba yàgg mu dem ba ci xar léegi ni ñëw na ba ci gileem ak i nag euh, muy liggéey boo xamante ne itam da ko cee lu bari. demoon na Serigne Touba waxoon na borom kër gi di Mame jàll gis boo demee ba nga xam ne gisagoo ma si gisatoo ma sax man nga jël liggéey bi muy togg ndogu muy def sa kër moom def ko muy mu di sëf sëriñ waaw loolu moom mu ko lu mu lu mu ko kii woon waaw. jamono bi dox ba ko ne agsi na tey xéwal lu ne moom ngeen def ngir fas yéene koo jébbal ki nga xam ne moom moo di eh, eh, ki nga xam moo di Darou Khoudoss. waaw ndax jamono day dox te lu yokkuwul rek ma ngay wàññeeku ndax eh, Serigne Touba. dafa waxoon maam Rijal te jotaayam boobu jotaayam bu siiw boobu borom xam-xam yi di nettali euh, ne ko Rijal samay wax gàntu na ñaar gàntu na yokk gàntu na wàññi waaye boo tàmbalee fa ma yem tàmbalee yam fa ma yem nopp bu mu dugg xolu borom nangu ca la ko waxoon ne ko nag samay mbir Rijal lu mujjee ñëw ëpp doole te loolu itam toujours liggéey bi dañ ko ci gis ndax xam nañ ni nit ñu baax ñu nga gis fii yëpp dañuy am pas-pasu bu weeru ko yu ñëwee ñuy def lu mel nii moo xam ñu ko jébbal seen kilifa. wala ñu koy jébbal seen i seen i seen i seen i seen ñuy wax seen i xarit di leen invité te ñooñu amuñu bu ndigal ñun nag bu dee dañ ndigal loo xamante dañ ko jëlee ci Serigne Touba Serigne Touba woo woo woowoon maam du jàll xamal ko ni ko del togg ay ndogu di ma andi xamaloon itam woote woon ci njaareem ci sëñ Malick Ndiaye xamaloon koy ne ko comme bis bii tey ci fajar la la la la ko ne woon bu ñu bu ñu ku desal xat desu xat dinañ ko ndax wóorloo wuñ ko dañ koy liggéeyloo loolu nag moo dox ba agsi fii ci njaboot bi képp ku fi mas a jaar rek ci loolu nga nekk liggéey boobu nag moom lañ sumb nii di ko liggéey di ko yët taawam bii di ko yët Serigne Serigne Moustapha Mohamed mi nga xamante ne mooy suñu bunt ci Serigne Touba mooy suñu bunt itam ci yoonu murit waaw kay waxtaan bi ñu gis ne insisté ngeen ci ñaari point euh, euh, moo waral ngeen tànn li waral loolu dañu xam nga euh, yoon wi suñ borom dañoo boole ay ndaw ñu am ak kër lool am Pastef lool dañoo xam nga euh, yoon wi de suñ borom dañoo boole ay ndaw ñu am ak kër lool am Pastef lool dëgg sëñ bi lool ca ndaw nag bu yooyu dajee ci moom ca dajee nekkut ak mag ma koy xelal mën naa jëfandikoo doole wala bëgg-bëggam yooyu yëpp dina won na dem ba indi affaire violence ca ndog yi ñuy togg dañ koy togg di ko terale ñu wor kon nag loolu moo tax ñuy bañ ñuy daje kenn ku wóorut di ko toroxal wala ñu koy def leneen ndax toujours da gis ci yoon bi bu ñuy dem da ngay gis léeg-léeg mbooloo fu mu daje da gis ñu ñu ñu yeewu gis ñu ñu rambax gis ñu dal gis ñu teey waaye loolu yëpp ñun dañ leen di teel a cadré wax ak ñoom ba nga xamante ni buñ demoon ba gis benn situation bu mel noonu itam seen xel dem ci wax yi ñu leen wax. Hmm? ñaata bool waaw loolu nag du neex a estimé du neex a xayma xam naa daal li ma xam mooy bis bu set dinañ defar kumte lu ne dinañ defar gileem gileem yi nag euh, ay boobu ci xar ñëwee dinañ ko ci def bu ay ginaar ñëwee dinañ ko ci def bis bu set dinañ defar nag nag yi itam. bu xar ñëwee ñuy dolli ci bu ginaar ñëwee nu mën a toll dañ ko ci yokk dolli ko ci nekkul liggéey boo xamante ni da mën a xayma nii nii lay toll ndax ñii nga gis ci waañ wi muy soxna yi nga gis euh, ñoom seen wàll bopp rek kenn ku nekk sa cin dangay dem di jaayante ji di wuti di indi di yokk sa cin nga gis benn taalib boo xamante ni day toog mu yàgg xemeem liggéey bi nga gis wala mbokk wala xarit wala kii xemeem daal yenu yanu dara am xam kenn rek ci waañ bi jox ko ni ko nañ ma ko defee ci liggéey bi bokkut yi nga xam ne dafay jaar ci ñun bokkut yi nga xam ne dafay jaar ci sëñ bi bokkut yi nga xam ne day jaar ci fédération bi moo tax liggéey bi nekkul loo xam ñun daal li ñuy def dañuy tàmbali waaye lépp lu ñëw rek dañ koy def ci liggéey bi li ñuy ni ñuy doxee daal suñu tay ju ne dina gàccaal suñu démb lu ñu def tay nii bu subaa danañ def lu boobu incha allah ba weeru jeex ah. waaw xam nga ñun yoon wi murid da am nu ñoom Serigne Moustapha Mohamed mu suñ bàkk soon mooy suñu bunt liggéey bi ñuy liggéey moom lañ ko jébbal suñu demee teg na foofu ay jëwrin bu ngeen demee da ngeen leen gis jëwrin yoo xamante ne nii saa bu ñu ñëwee eh, bool yi ñu yor dañ koy yàq yi ci des itam dina am ci leen ci ci ñi ñu àndal ñu leen yóbbu leen ko place sàngam ci kër kilifa yi yii ñu leen yóbbu la yii ñu leen yóbbu fa yee ci des ñañ fay fekk ñu soxla ko ñooñu ñoo koy ñoom ñoom ñoom ñoo koy séddale waaye ñun bu ñu demee dañ koy jébbal sëriñ ki jawriñ ji ñu sëriñ bi kii rek ñoom ñoo xam ne ñu koy distribuer euh, waaw li may euh, wax rek euh, taalibe yi mooy ñun moom suñ mbir ñett la rek ñaq ak ñukk